Desde esse sexto saliu o que de proximité ñeel campagne électorale bi aljuma bi ñëk nak ci koor gi mu défar ay ndogu yu bakkane macha allah daara yi Serigne murtala Mbacke ibnu Serigne Touba Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñe nak tassare ko ci yenen daara yi nga xamni ñoo nek ci gox ba yi Serigne murtala Mbacke nak euh, nek fa nga xamanteni bi mo di ci noflay di béréb bu ñuy défaré doomu adama gis ngeen euh, Serigne daara baangi nonu ndong yi nak waru ko yore seen di téere seen i xasaayit macha allah waañ ba itam mi ngi noonu nag ak soxna ya gis ngeen ko soxna si nag seede mbaax ak Pastef fu DG Saliou Keita ñeel kulli banni aadama leen jaajëfal ndax ca suba ba léegi démb ba ma ba yaboo sax ñu ne démb ba tey bañ leen ne Salif Keita dafa am fi ndogu yéen ñëpp dangeen ngeen bàyyi seen yitte ñëw jàppale bàjjan vraiment kontaan nañu bu loolu weesee saalif Keita ñu ngi lay gërëm ñun de waa Noflaay mënuñu laa fay ndax li man li ma la tudde woon keroog ba ma ñëwee ca réunion ba dama ne yaay jooni jooni te yow yaay jooni jooni ndax loo diggoog ñun def nga ko li nga diggoog ñun yëpp def nga ko parasol yi ñëw na kilim bi ñëw na ciment bi ñëw na tey nga ñëw ne da ngaa ñëw ñu defa defaral suñu waa daara ji ndogu ñun waa Noflaye de amuñu luñ la faye ñu ngi lay gërëm di la sant te di la xamal ne nag ñun ciment rek lañu ben yoon rek la ñuy te bu sooba yàlla bu neexee yàlla doo gore yoon benn yoon rek doo ñu ko gën a gore parce que gis nañ li ñu defal bu baax ndax dañ doon nelaw nag nga ñëw yeeñu ndax gars dañ ne politique fi nga jox ma junni ma dugal sama poos lekk man kese man dong ñi si des di tàkkamte ku teg du ñu gis dara nga ñëw nag dindi fi loolu loolu la dindi nga fi kon boog li ñu bëgg mooy bu ko roogee ñu dóor li ñuy dóor dem ñibbi te ñu ngi lay ñaanal rek ndam rek lan lay ñaanal di ko ñaanal uh, Amadou Ba te bu boobaa ñoo lay gunge ñun ñoo lay gunge yaak Amadou Ba ba ca pale ba yal nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam. ñu ngi lay jaajëfal bu baax nag muy góor di jigéen di mag di ndaw ñëpp ñu ngi lay sant noflaay gépp a ngi lay sant kenn desul nag góor jigéen mag ndaw ñëpp ñu ngi lay sant di la ñaanal nag lii nga lii yàlla na la si yàlla may ndam te yàlla ak sëñ Babacar da siy def ndam sax nag yàlla dina ci def ndam wasalaam. maanaam si gi nag la DG Saliou Keita eh, daal agsi ak délégation bu takko takku macha allah militant Noflaye nag teeru ko teral ko gunge ba ca daara mu saafonte nag ak soxna ya ca waañ wa. nes kiis nag sëriñ ba ca la accès Saliou Keita nag firndeel macha allah wax dëgg yàlla ak taalubeem bëggoon sax toog ca suuf ca la nag euh, sëriñ daara ba joxe ndigal moom Saliou Keita nag ngir mu toog euh, ca kaw. nag euh, la ñu ndogu daal di julli nag timis euh, delloo subhaanahu wa taala yàlla la mu moom ca la nag euh, berne ya accès waa daara ja xéewlu ak militant ya fàttewuñu itam nag yeneen daara yi nga xam ni ñoo nekkee foofe ca gox boobale gannaaw loolee nag euh, ca la waxtaan wa tàmbali ñu ubbeeku nag ak xasaayiti Serigne Touba Xaadim Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne léppam yàlla subhaanahu wa taala la su su Noflay jël nañ fa kàddu militant ya itam waa daara ja ci la g DG Saliou Keita yëkkatee ay kàddu gannaaw moom nag sëriñ daara ba itam waxtaan wi nag moo fa jibe min fu dooy ma yàlla yàlla yaa man ala kulli shay'in xaadirun wa ala arsila siini sawal bilaar yàllaaw inni saatuka xalban xaasen mutala di an wa ilman kasiiran nafqa yàllaaw wa tawbatan qubilat ndax met metin rafiat masrajatin sa luxat bi diini yàlla wakkun di am lu muy bëgg sunu borom nag moom nag mën a lu ne waaye ñu ngi koy ñaan ci barkeb turandoom li mu bëgg sama borom defal ko ko barke sëñ Tuubaa ca lépp ñu ngi ko wéy nag suñu xalifa bu tedd bi suñu sang bu bi moom lu mu wax rek kum gestu bay yow rek yow a kon ñu ngi ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa sama borom defal ko tawfeex ba li nga laar ak li nga bëgg ak fa nga bëgg a yegg sama borom yeggale la fa lepp lu dëppoog loo xam ne bi rek heure bo xeye di ñaan sa borom defal lako ñi ngi ñaan ci barkib Jalibatul Maraq ci barkib xasida gi ñu doon jang sa borom defal tawfiq bu gune ci yalla yàlla na jot barkib Serigne salim mbake taalibe Serigne Touba yi fi nek yëpp fi moy seen kër fi moy kër Serigne Touba gi kon day melni fi ñu la dalal moy résidence Cheikh Ahmadou Bamba nu fi jang alxuraan di fi jang qasida di fi julli waxti yi jumaay jang ni noppegul ñu ànd feek sunu serigne Cheikh Mamadou murtada mom seigne Cheikh Mbacke mom seigne baro Xureja mom mamour diara borom sam kon Mbacke ñu ngi lay présenter sunu gan gu bax gi seigne saliw DG Saliou Keita ku ko dégg bëgg koo xam soko ko do ko mën bayyi soko soo do ko mën muñ ndax jikko ma tax seigne Mourtala nang lay bax gan gu nak nag indi nañ ko fi gan gu ne ñëw na fi waye ki mom kenn la ci gan ñi yalla dogal na ni asan job mi motax ma xam ko asan mi kere bi mi ñew di indil waa jumaay ji seen kilim bi mu leen waxon te as suñu blaat Mbàkke da wax naan as gor su waxe ba pare lam wax méngoog ay jëfëm soy japp jappal as gor a ngi fekk pire wax ba pare jëf jëf ja waroog ay waxam sëñ Abdoulaye nee na bul japp na fekk ngok waye ki dess gor la. lam waxoon lu mos a wax ci noflaay rek def na ko kere ba soxna yi jàmbat ay parasol xadi joo bëggoon wax kere bi ñu ko fekkee fële ci permanence ba ba mu leen waxee ne recensé leen parasol yi ni toll ba ko waxee indi ko ba leen digg ay kilim pour margo bi ndax ko goo ko defal mu indi leen ay kilim pour koo xam dafa génn àdduna ñu mën ko cee bàyyi ba ko waxee def na ko kon tey fii nga toog sëñ Saliou bu la neexee xool nu ne nu jàkk ndax gor piir nga waaye nag taalibe sëñ Tuubaa nga noonu nga mën a mel barki dem dama une heure de matin la ma woo ci guddi bi ma may wax ndogu yi ni ma man jëwriñ taalibe sëñ Tuubaa laa ni ma man doxinu murit laay dox lu ma narul du ma ko wax loo wax def ko yàlla rek ko man waaye jëwriñ ma lu ma narul du ma ko wax barki sëriñ Saaliwu une heure de matin la ma woo ci guddi gi ma ne ko deux heures heure bi guddi na mënu ma déedéet nan waxtaan rek di wax ci sëriñ bi ba mu junj ma ndogu da koo bëgg a def la ji duñ ko leeral ba ëpp waye li ni sante moy Assane mi nu ko indil yow la ni sante yow ñi tok sa kanam ni dañoo daw ci politique bay bëgg a dee ci ben résultat té da nga wax kër wax ju solo DG fi ci buntu kër kër du Laas nga ni man duma and duma politique di and ak kenn di yok muy wàññeeku man ku may àndal da ngay gis sa bop ci man di gis sa bop ci réew mi té wallahi al-azim bu doon teraanga àdduna do politique do sonu ni ngay sonne macha allah grade yi nga yi nga yor ak li nga fi nga jaar sa palmarès. yal na yàlla fa cat te jàppale la. waaw foyer des jeunes bu Noflaye jataay moom yàgg nañ koo bëgg mais yàlla mu ngi koy doog a à chaque fois ñoo ko alsaan yóbbante bi mais day fekk euh, président du fi nekk day dem ay voyage wala du nekk Sénégal looloo tax boobu léegi nii muy doog a am ñun nag dañoo bëggoon toog ak lu bëree bëri bëri parce que dañoo yor fii benn foyer te dañoo am ay projet ku ko ku yor foyer rek xam nga ne am nga projet boobu léegi nag fii. comme que ñun à chaque fois dañuy def ay ndogu annuel euh, suy koor gi ñu ne pourquoi pas ñu a tey ji waxaale ko benn yoon te xam nañ tamit am na loo fi indi si biir dëkk bi li la fi indi nag yàlla miy may ndam yàlla la yàlla may ndam yàlla moo war xam gi am ndam yàlla na yàlla may ndam ñun nag ay ndow lañ waaye ku ñu jàppale ñu jàppale la parce que ñun am nañ droit voté te ñu ngi suñuy carte waaw te si dëkk bi lañ dëkk te ku yor foyer yor ngay jeune foyer bi li ko composé compo ñu ko composé ëpp na ëpp na

ñu ngi lay ñu ngi la ci gërëm bu baaxa baax boobu léegi aussi ñu ngi bëgg ñu ngi la bëgg a rencontrer pour toog ak yow waxtaan ak yow par rapport euh, à la politique de ci politique de jeunesse bi nga xamantene war nañ ko teural au niveau de la commune wa tay sama xol dafa sedd parce que dañ na ci bes bu mag muy besu koor hmm. wéru koor mu doon wéru jaamu yalla directeur tax bi mu waxé li li mu nar ci fi suñu xol dafa dafa sedd lool parce que dara wessul gën jaamu yalla bi ci ëpp moy gën jox ni joxe ñam hmm. dara gënu ko surtout si weeru koor moo tax DG bi mu demee moom chaque ajjuma day defar day joxe ay ndogu si daara yi bi mu ne rek andi noflaay man sama xol da sedd guy parce que lii jaamu yàlla ëpp rawul lii directeur Saliou Koyta dañ koy ñaanal yàlla rek man doot nu ko gërëm ku baax la ku social ku lépp la quoi am na ku ma dégg keroog ne la doo politicien quoi bi ñu demee Mambilor sëriñ bi loola ko wax dana ko directeur daal yow yoroo jikkay politicien politicien mm-hmm. moo nekk ci moom moo tax yàlla bi ma boolee moom bi mu koy jàppee ba léegi man jàpp naa ko nee ko man aw ma tànki ginnaaw man su ma la ba jàpp naa la man ñi ma xam ñëpp na ko wax man jàpp naa koo xamante ne am naa ko dinaa mu jéem a jàpp DG mi parce que moom laa am téye ko te man bu ma la xasee jàppale jàpp naa la parce que moom war lu ma ko jàppee vraiment di leen gërëm yéen alsaan yéen ñëpp ma ñëw fekk fekk leen si DG ngeen yaatal ma mënu naa ñëw mais saa yi ma ñëwee keroog ma wan ma kanam gu leer yaatal ma dalal ma xamal ma ne fii nga ñëw sa kër la a soxna yu baax yi ni ko jëriñ waxee saa yu ñëwee fële ñu teeru nu teral nu yaatal nu di gërëm waa waañu jigéen ñi ñoom Khady Diop Khady Diop tamit jàmbaar la ko wax dëgg yàlla jàmbaar dëgg la kenn mënu ko man maa tax mu xam DG mi mais mu ngi bay waar si DG lu ne mu ngay def lu mu mën ax lu mu mënul ku mu xamaax ku mu xamul mu ngi indi si biir kon boog dañ koy gërëm di ko sant aw mi Mbodj moom laa jëkk moom mooy jëkk dem ci DG direct si fële permanence ba si bi ma déggee DG man président commission sportive de la zone 7 la DG recevoir ñun ASC yi defal nu ay teranga yu ne di def ay teranga si zone bi bi ma ko déggee man dama guma kii laa fa yebal kii ma nekk ko bu ma sañoon de nga liggéey ak DG gis naa yow am nga gëm-gëm te kooku ku am gëm-gëm dafa déplacé dem ba ci yow Alsane te woo man gisaguma demaguma si DG sax recevoir nañ si ses directeur bureau yow yaa nu yóbbu mu recevoir ñu nu waxtaan si lu bëri ma gis xam ne ku baax la ku baax na ku ko gis muy def ay teranga si gox bi da nga koy sa gox DG maa ko oo téléphone indi ko noflaay parce que dama yéene teranga yi muy def si àll bi di ko def faneen ak faneen si département bi yëpp si département bi bi waxuma la commune bi rek de département bi partout ñëpp waa Tëngéej fépp dañ koy sollicité mu si def lépp lu mu mën ak lu mu mënul kon moo a man dama am sawarte indi DG mu ñëw si dëkk bi te bi mu fi ñëwee rëccu ma lu mu ko wallahi azim rek ci mu DG ñëwee ci Noflaye lépp li mu waxante woon naa waa dëkk bi mu ngay def am si taxawaay boo xamante ne fan yëpp dañuy recensé CMU bi dafa mayee cent personnes mag ñi pour ñu jël leen ku feebar faju fan yëpp ci la nekk maam Mbodj ay xarit Diop ak sunu xarit bi Modou Mbaye kii Sangalkam la dëkk liggéey bi mu si àndax noonu toujours te mu ngi dëkk ba bu ñuy ñëw keroog si DG ñoo ànd chaque jour ngoon maa bi nooy ànd di def recensement pour faj loolu yombul jamono bi kenn ka xam ne njaboot dafa metti ku la yombalal faj kooku DG yombalal na ma jël na si mag ñi cent personnes recensé na leen ba photo leen ba pare pour mu fayal leen mu fayal leen semis bi ku feebar faju loolu yëpp bu mu ko indee dent indi naa DG Noflaay su defee loolu kan la ko defal. waa Noflaay waa Noflaay la ko wax ne pare nan man Ousseynou Mbodj ak ñëpp képp koo xamante ne déggal nañu ku Noflaay ñëpp ñu si ginnaaw fu DG woo woote bul gëstoo gis ñu. du naka nu ngi sa du ko wax nu ngi sa ginnaaw nu ngi sa kanam nu ngi sa fépp boo boo gëstoo gis ñu foo ñëw nuyu la fa muy guddi muy bëccëg muy naaj muy taw déjà bu ñu woowee bu toogoon ba guddi woon téléphone sax ne la ñëw leen nu fekki ko parce ngor tera ngor ngor a koy fay ku goree bu la wanee kii dama dafa wan dafa wan loo xamante ne dama lebal loo xamante ne il faut ma fay ko ko moo tax bu ma wooyee guddi muy bëccëg laa wax dinaa lu ma mën a dinaa ko bàyyi seeti déjà mu ngi nii iñaañoo ñu ko kenn déjà ñëpp la déjà département bi la dañ koy te liñ bëgg nag moom li mu bëgg moom mooy kilifaam mu ci am kii ki muy jàppale Amadou Ba pour ñu jàppale ko ñu fal ko premier tour loolu mooy suñu yéene nu ñëpp pour fal Amadou Ba nu fal ko premier tour si élection yi ñëw moom moom lay jàppale te xam naa nit ki lay jàppale nag ku muy jàppale jàppaleel ko moom lay jàppale te nun so bu soobee yàlla moom fu mu nu joxañ rek foofu la te si Amadou Ba lañ joxañ Amadou Ba suñu njaboot wax ñëpp Amadou Ba incha allah. waaye jëmm ji da di gor te am na loo xam ne moom mënu ko waxal boppam mais ñun ñii ànd ak moom dëkk ak moom foog ñu wax wax ko sëñ Mourtala bu baax a baax a baax nga dolli koo ñaanal euh, soxna yi ku si nekk DG xamante nag sa borom kër ku si nekk DG waxtaan ak sa borom kër ba nga tey am permission tey mën a bàyyi lépp ànd ak moom ndax ñëppan xam nañ ne doxul si ay caaxaan ñun ndaw ñu ko ne mu ngi lay fonkal say waajur nangu la liggéey jaamul yàlla fu waxtu jote lu ñuy def da nga koy gis mu bàyyi lépp moom mooy jiite dem julli ñëw taxaw ñun ñëpp topp si ginnaaw euh, kon tamit bu ñu ñëwee fii tey si noflaay te ñëw bi du benn yoon ñëw nañ fi ñëwati fi li ngeen fi wax si réalisation yëpp te lépp boo ko xoolee ci weer la yem te nekkul maire nekkul ministre mais wax dëgg yàlla nit ku mel noonu bu ñu ko jàppal man ndax xaw ma la ñuy jàpp dama koy wax ndax noflaay li ñu fi defagul te yàlla xam na ko toq la ndax yéeneem si noflaay ñun xam nañ ne romb na fi wax naa ko DG Saliou Keita ndombal ni muy yor muy directeur général du dañ ko kaa joxe fii si commune Sangalkam wala département bi teg Dakar la ko jëlee indi ko fii mais mon ñuul tok ne man ñii faluñu ma ma Dakar la ne di liggéey ba président gis sama sama njàmparti ndax Dakar plateau ne woon mais dama taxu sa fi damay ubbi sama bunte ñëw bokk wërsëg yu ma président jox ma and ak njabot gi bokk ak ñoom man da neena ak yeex nga ñew fi ci commune sangal dohale ndax ni ngay doxale ni bu doon liggéey rip non lañuy doxale ku nekk doxale ko fa nga ne yalla xam ko kenn du jëppi président Macky Sall kenn du mer ndax li nga man yang koy def bay def lo xamantene ne sax kon tay bu ñu ñewi fi Euh, wax dëgg yàlla euh, ñu fekk fii boo xam ne bërëb boo xam ne dañ fi daara ku ne xam ne tàggat ay ndaw jàngal leen arxuraan jàngal leen yoonu sëñ bi jàngal leen lépp ak mbaax ak ak jub kon tey jii dañuy ñaan yàlla ne fii lu fi nit ñaan day nangu ba pare si weeru koor lañ nekk weeru koor ku ne xam na ne lépp lu nit def benn dañ koy ful lépp lu ñaan nit ñaan sunu borom dañ koy nangu kon sëñ bi dañoo bëgg nga ñaanal ñu DG Saliou Keita bu baax a baax a baax ndax kii jàmbaar la côté bi ñëwee rek si élection yi dafa am analise bu ndaw bu may def yàlla xam na ko man mii de yàlla def na dama fekk dañoo ñun ñëpp dañoo ànd jàppale président Macky Sall mais tey man sama statut bu ma fekkoon ma nekk sa opposition ma gis DG Saliou Keita li may wax c'est très important parce que élection 19 euh, candidats la ñu am yi bari nañ fi am na ñoo xam ne gis nañ leen ñu ngi doon calculer dem nañ ba dernière minute doog a jël position ñooñu ba ñu demee fekk nañ nit ñu sos ba pare la ñuy sos boo fa demee bis bu ñooñu see ka ngay jàppale ba foloo tamit am na position yoo xam ne mënoo ko fa am. dañuy waxante dëgg ñun xam nañ politique bu baax kii rek yàlla dafa def wéy juróom bu jigéen dafa génn àddina suñu candidat Amadou Ba déplacé wu ànd ak huit ministres ñëw këram fekki sa ko fële sa kurun ngalam xamal askan yëpp ne leen DG Saliou Keita mii amul dërëm fond politique bu ñu koy jox wala ba muy jot ay moyen boppam lay jël di ko bokk ak nit ñi beneen bés xam le ne moom ak Saliou Keita diggante mag ak rakk la ndax depuis yi ñuy dugg si camp ñooy ànd ñoo bokkoon dëkk seen Dakar ko tey ji yaakaar naa ne su am na position bu moom si Amadou Ba ak ñun ñii ñëpp a ko jege xam nañ bu baax li muy jëflante ak Amadou Ba wallaahi al azim kii bu Amadou Ba falaw li mu def fii mën na ko multiplier par mille te loolu c'est très important nit ki bu ñuy xool ay candidat mais da def tànn nga def analyse amul kii dama laay forol ndax damaa mere kii wala dara non da ngay xool kii falaw est-ce que dinañu amal njëriñ ñun est-ce que bu faloo dina am ñun suñu liggéey yi leen di jàppale est-ce que dinañ am benn ma ban candidat de mooy jàlle sàngal kam di des ginnaaw wala ñun ñii mais Amadou Ba jàll na DG Saliou Keita mi dinañ ko gis si si dinañ ko gis si con si condition yu gën a meilleures yi nga xam ne nekk na que kon damay ñaan ngir yàlla war a suul nañu ko jàppale jàppale ko moom mooy jàppale Amadou Ba Amadou Ba ñu jàppale ko ba mu nekk président de la république mooy DG Saliou Keita mi tey lu ngeen soxla woon wala lu ngeen gisoon moo koy def dina ko multiplier par mille ba Assane mii dina kontaan bu baax ba du rëccu sax li mu doon lu mu ko doon indi fii si Noflaay waaw Amadou Ba nag ñun ñëpp xam nañ ne bu ñu xoolee sans par par am mooy le meilleur profil du ñuy waxte yàlla tax si weeru koor lañ ne ñoom ñi muy xëccikul ñi si bëri ñenn ñi moo nekkoon seen patron fële sa enam sa ena ñi mu doon moo leen fa te ñoom moom lañ defoon référence tey ministère yi mu jaar jaar-jaar bu mu jaar amul kenn benn benn candidat bu ko ci am waxante dëgg xam bi mu amul ku ko ci am te doo génn vidéo bu Amadou Ba waxee nit lu ñaaw amul si Sénégal ñëpp a nangul ne ko yaru la ku am diina la te suñu kilifa diine yi ku ne gis na ko koroog moo sëñ Muntaxa une heure lañ dugg si néeg tëju ba vingt heures ñu doog a génn gis nañ ko dem defeti waawan koroog yi ak Serigne Mbaye Sy Mansour kon maanaam dafa boole ñëpp nekk nit ku baax nekk koo xam ne plan Sénégal émergent bi xam na ko am leadership am relation internationale Sénégal nag fu mu toll ak pétrole ak gaz bi balla mais nañ ko jox ku mat koo xamante

parce que DG Salif Keita dañoo rafle genre nit bu mel ni moom parce que lii yomb na ah, wax dëgg yàlla ah am na ñu ko mën te defuñu ko wax dëgg yàlla te am na ñu ko gën a yeyoo fuuf defuñu ko benn yoon kon DG wax dëgg yàlla man moom dama lay dénkaat sëñ bi bu baax a baax a baax a baax di la wax sëñ bi ñaanalal ñu ko ndax mu raw ndax bu rawee rek ñun ñu raw dama bëgg nga téyel ma ay tànkam. nga gën ko ñaanal mu gën a am kattan ndax bu amee kattan rek ñun ñu am kàttan maa ngi lancé appel sama moroom jeunes yi dëkk commune de Sangalkam di leen wax ne leen ngeen xippi seen i bët ngeen xool bu baax a baax a baax a baax parce que tamit neex na trop nga yor say oto yu bari di def caravane di dugg ci biir population bi di leen bëlëve par rapport ak ki nga xamante ne dafa wàcc si suuf dugg ci askan bi di wax ak ñoom. jàkkaarlook ñoom di wax ak ñoom di leen wax ne leen seen ëllëg mu ngi seen loxo te boo leen ci góorgóorloo rek seen commune amaana mën na ñoom kon dafay baax yenn saa yi ñuy jëglu nit ñi ba ñu topp euphorie bi parce que boo xoolee président Amadou Ba dafa am dafa am bilan ba pare ñëw tegal ñu programme am na ñoo xamante ne nag ay opposants lañ. mais amuñu programme boo leen laajee programme dañ naan la diw mooy diw diw mooy diw loolu mooy lan programme lan la ëllëg ñu bëgg leen ci topp kon suñu Sénégal ñun jeunes yi ñoo ko war a téye bu baax a baax a baax a baax xool bu baax ci loxo yi kan lañ koy teg te ah man de li ma gis te gëm ko du caagi ne dama topp ci Amadou Ba rek dama war a ne Amadou Ba moo gën mais man li ma gis te gëm ko man Amadou Ba moo gën si ñun te moo gën ci Sénégal ëllëg ndaw ñi nak dama bëgg ñu xippi seen i bu baaxa baaxa baax ñu xool bu baaxa baax fi ñi sand seen carte waaw ma ngi tuub nak di bu baax sëñ bi ah da nga ñaanalal ñu suñu waa bu baax nga jappal ñu bu baaxa baax nak nit ku baax la parce que tamit bu ñuy wax ay qualité am duñ fi joggé bu ñu sañoon duñu wax sax ci ay qualité duñ ko wax parce que déjà commune de kam ñëpp xam nañ ko barki Sëriñ Touba dugg nga ci daare jii tey waaye nañu xool ren ba déwén ak ñi nga àndal ñëpp defal suñu doom yi ñiy toog nii tey buñ la daajaloon xasaayit nga ne déedéet muy góor ñi ak jigéen ñi ba ñu ci gën a ndaw ñun ñii ay daf ñu fekkoon ñu nekk ay taalibe mais moo ñu def ay murit saadix sëñ Saliou li ngay wut yal na la ko yàlla may ndax yow loo am bokk ak doomu aadama yi lekkoo dara bàyyi kenn yow kenn wul mu laa gërëm kenn mënu laa sant xanaa kay dañ lay bàyyi ak yàlla. sëy Saali moom liñ ne benn nen la boo ko baxalee du mate ñëpp soo ko omelettee du mate ñëpp xanaa ñu mayonnaise ko. ku ne capp ja. mayonnaise rek ñu ñu ñu ñu ku nekk ku nekk capp si. di sant tamit euh, sëriñ bi nga kii Serigne Saliou Kayte mi nga xamante ni nii wax nañ ne jamono yi weesu ci ginnaaw jëf na ci jumaa ji lu am solo. muy deux tonnes ciment mu nekk jëf ju am solo lool ju rëy lool kon ñu ngi lay sant bu baax ci jëf jooju nga xamante ni ci néegu yàlla nga ko jëf nga xam ne néegu yàlla lu ca baay jëf rek sa bopp nga ko jëfal kon yàlla na la suñu borom fay te defal la ko mu doon ay ndam ci sa kanam incha allah. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. Serigne bi Mbacke. asalaamaaleykum wa rahmatullah kii naaw bu ñu santee yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa tey ñu sant sunu wasila sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg tànte ko may sant tey sëriñ Maamoor Mbàkke Masamba bi nga xam ne ni moom féete na ma fu te defal na ma lu ne waaye di dalal xelu ndaw ñi politicien ñëw fi tey ab taalibe moo fi ñëw moo tax may leeral ni fi ma toog nii ndigal moo tax ma toog fii mbaxana bu ma sol nii ndigal moo tax ma teg ko ci bopp ba waaye taalibe du toogee nii ndigal moo tax ma toogee nii sëriñ bi jërëjëf sëriñ bi dinaa la sant bu baax waxtu bi daf la waroon a fekk Touba biig ba ñu waxee ba pare nga ne ma sëñ Saliou dinaa toog xaar la soo ñibbee ma doog a dem Touba fanaani yàlla nañ fi yàgg Mbàkke di wax ni jotaay bii ñii de buñ ma ko teeloon wax balaa may yëkkati dara si nooflaay bii si yow laay njëkk yàgg si yow yaay sunu sëriñ Touba mu neex ñu mu naqadi ñu yow yaay sunu sëriñ Touba kese nag mbakke ñaari mbir tax nañu ñëw tey fii bu si jitu muy weer bu tedd bi weeru lislaam weeru ngëneel man de damay fas yéene bu jot bi aljuma bu ne daara lay wër di len jox di len jox di berle ab murit la xam nga fii këru lislaam la jëwriñu Pape wax na Aline wax na li leen tàggatee nii tey dafa am solo ay jullit lañu nañu jàng ikra taxrifuuni hablan an taxbuduuni fa in lam fa kayfal taxbuduuni ànd samay xarit ànd samay jigéen ànd samay rakk ñëw ziyaar la ñëw béggal daara ji sunu wareef dong lañ def maa kuntum taxlamuuna loolu Sëriñ Tuubaa dafa ne nañu joxe murit day joxe ni gën a joxe rek yàlla delloo la ko wa ma anfaqtum min shay'in jërëjëf Sëriñ Tuubaa ñaanalal le président de la république Macky Sall bi nga xam ne ni dama jaxasoo ak moom te defal na ma teraanga bu ne ñaanalal kii nga xam ne ni mooy jëmm jii di Amadou Ba nekk sunu candidat bi nga xam ni gunge na président de la république Macky Sall ba def ay réalisation yu baree baree baree bare waaye tey moom la ñu bëgg nga ñaanal ko yàlla defal ñu ko président de la république mu gën ci Sénégal gën ci sénégalais yi sëriñ bi gis nga ñii ma àndal nii tey nag ma leen ñaanal bu baax a baax a baax a baax man de soo ma ñaanalee ma tekki doyut waaye nga ñaanal ma ma sekki ndax ma amal leen njariñ ñii nii dañuy daw di ñëw si si sëñ bi ñu nekk mba Mbàkke balay sax mbooloo bii di daw di yegg si si yow lu xew mu ne njariñ dong moo tax ñuy daw di ñëw moo ko wax de waaye njariñ njariñ moo tax soxna yii ndaw yii yaakaar si sëñ Saliou bii man ba si yow laa yaakaar boo ñu ñaanalee Mbàkke mu sotti wa Mbàkke sa mam do non wax ni mbolo bi ñew ni yaakar bi leen tax lor te duma war. leen wor kon ñi suma waxe nga ñaanal ma ma sekki ñi yalla buma wor yalla buma lor xam nga war moy lal bu mbir mi soté ñom ñu bëgg ma gis mu ñu bëgg wax ak man mu teleen ma nekk si leneen kon wor naa leen suma ma leen naaree wor mbàkke yàlla bu dara sotti yàlla bu dara sotti kon di wax rek kàddu bi duñ ko yàggal waaye ndaw yi toog nii moom mi ngi tudd pël dama ko seetaan si ben émission muy wax avec un jeune Fari j'ai tout fait pour un numéro waaye yalla gis nga ni def daf ma dégg ci deug bi deuk bi mu daw mu qui si wax je vous rassure mardi prochain je vais convoquer tous les élèves et étudiants de cette commune tous les présidents de foyer ak seni membre ngeen ñew ma jakarlo ak yeen la problématique de l'emploi des jeunes ñu waxtan président Macky Sall lan la fi fekk par rapport à l'emploi des jeunes lan la fi def ak président Amadou Ba fan la ko bëgg jëmé ma wax leen ko dalal leen gis nga ñi di wër ni naan ay candidat lañu barke Cheikhul Khadim la problématique de l'emploi des jeunes c'est une problématique très sérieuse j'étais secrétaire général pendant sept ans je connais beaucoup de choses sur ça président Macky Sall Mbaké, andak ak Ba nous bokk ñu nas programme am naa sañ-sañ tey ma ne la mbakke ñaanal ñu taalibe yi nañu votel Amadou Ba am naa sañ-sañ boobu parce que taalibe dong laa taalibe la ñu waaye ay citoyen la ñu waxu politique dinañ ko wax Serigne Touba moo ñu ne jaamu leen yàlla ba jàpp ni suba ngeen faatu yéen a koy def Serigne Touba moo ñu ne liggéey leen liggéey leen ba fàtte dee amut murit day liggéey de ah xoolal rek murit liggéey rek waaye ñun bu ñuy dem màkk ñun murit yi kaaba gi moo ñu fa yóbbu waaye du jaamu yàlla ndaxte jaamu yàlla bu ñu am fii amul fenn mbàkke lii fi xew tey bu ñu deful ndànk lislaam bu ñu xam ñun lislaamu seexul xadiim lislaamu seydi malik billahi buñu buñu deful le 24 dugg ñu indil ñu l'islam bo xamni dinañu suñuy barki rasul ni dama ko xam bu baax musuma mais ndaw bëgg waxal ñu dem fu la crise elle est mondiale président Macky Sall il est là depuis 12 ans un mois ñu salaire amul nañ mako wax kuy xamat amutu fi on a fait beaucoup de réalisations on est à l'aise de parler du président Macky Sall et de ses réalisations il y a pas de complexe président def na fi lu nek kon di len wax ngeen dalal seen xel dinañu waxtaan ñom bañ koy nas dama and ak ñom ñu nas ko kon sañ na wax ni nañu voter utile pour l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais nous ñun sangal kam ay sénégalais lu ñu bu ngeen ngeen bu Dakar di jangi quatre heures de temps pour ngeen aujourd'hui 30 minutes vous êtes à Dakar c'est des réalisations donc na ngeen japp ni le 24 vote utile pour l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais Oui. nga tok je ne suis pas un leader événementiel sëñ Pape man mii du leader événementiel am na ñoo xam ne ñu ngi politique gëj ngeen leen gis ñu dugg ci biir nit ñi tey dafa am lu xew le 24 élection la moo tax ñu ñëw dugg seen biir barke Cheikhul Khadim bu élection bu jeexee dootoo leen gis. billahi wallahi taalaay waaye ñun ñu ngi jaxasoo ak yéen guddi ak bëccëg. xam seen soxla seen soxla doon suñu yitte kon lii prétexte la rek kon dem leen votel ñeneen ñoo xam ne ni ñoo ñoo ko nas ba pare yow nga bëgg a dem jàppale ñooñu ñooñu bu ñu gañee est-ce que di nga leen séenati kon Sangalkam def leen ndànkan ah. waa Sangalkam nañu votel Macky Sall votel Amadou Ba mooy seen njariñ ku leen wax leneen day wax lu ko neex man Saliou Keita maa ko wax kon mbacké fofu lañ koy daanalé man dé di la sama bop si batin, ak si zahir aw ma ku dul sëriñ Mansama man Saliou keta man sama bay taalibe cheikh akhan la sama bay mu xadam la won waye sama man moy Serigne salihou mbake sen lettre bi dama ko xol ngeen bind salihou ma contane tuduma Salif je m'appelle pas Salif je m'appelle salihou waaye mon papa était là quand Bargny bi le retraité djuma ji fa nek sama baay moko ko tabax en tant que autorité militaire waaye dem na mission yalla def na mu ne xaritam jox naa la turu xale bi mu ne déet jël naa ko waaye doom ju góor laa doon ñaan yàlla pour tuddee ko sama sëriñ mu Cheikh Sëriñ Saaliwu mu jox ma ko Mbàkke Tuuba laa amee soxna sëñ abdu Fata Mbàkke Tayif man mooma may soxna ñu may àndal xamuñu ko ma jëbbalu si sëñ Maam Moor Mbàkke Masamba kon taalibe dong moo fi ñëw te dama gëm ni adina bi ku ko daw di wut ay matériel yaa ngi nax sa bop lal moy auto bu rafet lal moy kër bu rafet sacc alalu adina bi ñu def la directeur général ñu def le ministre ñu def le maire nga sacc alalu adina yi nit ñi lo si nar la belle vie mais bu yow keseeg sa wai la ëllëg ñu ci am ñun dañ koy delloo askan bi un DG pauvre avec de la dignité ou bien nga un DG riche avec de la malhonnêteté de yàlla kon Mbàkke ndaw ñi foog ñu waxtaan ak ñoom moo tax lu leen fi indi sax xamuñu ko mais dama ni jàppale leen ma jàppale seen bopp dugg leen waxtan len ak jeunesse bi ne la vérité c'est de voter pour Amadou Ba il passe barki alcorane karim man ak yéen ñu def fi lu fi musul def et c'est ça la vérité ku len wax lenen day wax lu ko neex gis nga politiciens ils auront des problèmes avec moi duma ma ken duma du ak ken, duma wax lu ñaaw ak ken. waaye cette politique de vérité la fille imposée, ils seront obligés de faire ça et je sais qu'ils ne peuvent pas. Mon tax c'est ngeen ma C'est sama ma at ñu politique di ànd ak ay leader maa ngi sas sama bopp nag waaye boo mu mu ngir la promotion de l'entrepreneuriat la promotion de l'autonomisation des femmes loolu moo tax politiciens yi boo waxee ñu ne fan sa base base c'est mooy lal mooy fi militant yi nekk man awma militant ay frères et sœurs la am créer sama base muy le bureau d'appui et d'assistance socio-économique de Sangalka. renforcement de capacité des jeunes des femmes pour nous faire la promotion de l'entrepreneuriat la promotion de l'autonomisation des femmes pour une meilleure insertion socio-économique loolu mooy sama démarche c'est ça la nouvelle politique Waye taxaw yoro say auto di tek ay musique taxaw fi di def naka sudul man gëwuma ko kon Mbàkke ab taalibe dong mo fi ñëw mission lañu nek nak. mission day jeex am début am fin bu jeexee ñu na la yow ba nga doonee ministre yow ba nga doonee directeur général yow ba nga doonee maire yow ba nga nekkee président du conseil d'administration ban njëriñ nga amal askan bi ah, ah, askan bi ñu ngi gis de loolu woy boobu man Saliou te loolu lay waajal si gox bi ndaxte gox gox bii ah waxuma ne maay mujjee deede waaye ñaanuma ko yàlla tamit ñi nga xam ne ni maa leen ni jiitu fii lañ may jaale si sama kër fii man sangal kaam laa am fii bu yàqoo ma yàqule fii moo ma gënal Sénégal juddoowu ma Sangalkam yerowu ma Sangalkam waaye Sangalkam laa am titre foncier Sangalkam samay doom juddoo fi samay sët juboo juddoo fi kon aw ma lu dul Sangalkam barke Cheikhul Khadim ku bëgg Sangalkam maa la ko gën a bëgg asalaamaaleykum wa rahmatullah xam ne yooyu jëm ci xëccoo xëccoo bi nag yàlla pare na ci loolu it mën naa xamaale mën naa xamaale ay sabab rek moo ci des saw rek mooy sëñ Salif dem barab sàngam keneen dem barab sàngam keneen barab sàngam ku ne di dagaan nit ñi rek ngir loolay sabab si waaye ka yàlla di war a teg ci réew mi wax ju bari du tee mu teg ko fi wax ju néew du tee mu teg ko fi alal ju bari du tee mu néew alal du tee mu teg ko fi waaw yooyu yooyu yooyu lu mat a lu mat a lu mat a bàyyi xel suñu borom pare na ci loolu te kat faaliwu faaliwut kenn faaliwut kenn ci ci ci li mu bëgg a def desi waaw suñu borom faaliwu ci kenn waaw lim li mu bëgg a def desi dana ko ba noppi dem dem leen nag jaar ci sabab yi rek ndax it suñu borom nag ba tey dafa maandu maanaam fekkuñu am réew ñu ñu yee nit ne ko pëkk pëkk pëkk kaay jiite réew mi loolu bëri wut a gis bu am na hmm? kon ay sabab la ci nit ñi jug di wuti eh, carte nit ñi waaye waaye bu demee ba ca ba ba ca eh, suñ bam coom mooy roofaat ci xol yi ki war a falu mooy roofaat ci xel yi ki war a falu fi ne mën nga fee bëgg nit lool dem ba ca urne ya su borom ne la diw diw laa décidé waaw diw laa décidé ah te boobaa moom du du fa ne di ko wax ak yow dalay bëgg loo diw rek ah, ah baa nga jël diw def ca enveloppe ba ba noppi génn ne man ndeke diw laa wote fekk yooyu xereñ yàlla la ah, moo tax moo tax nañ rafetal wut gi rafetal amin wi ah, loolu mooy tax ku am doo ñaaw ku ñàkk it doo ñaaw ah waaye bu wutin wi ñaawee rek eh, amin wi day ñaaw eh, bu wutin wi eh, boo ñàkkee mu gën a far ñaaw nag ndax da ngay boole ñàkk ak waaw ah, la nga doon wax ñaaw hmm? kon yooyu yooyu lu mat a lu mat a lu mat a bàyyi xel waaw ah, sëñ Saliou ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax ñu ngi ñu ngi bég ci ñëw gi waaw ah, nit moom bu la xasee ne ab jullit la ab taalibe la day mel ne yooyu ndax mm, mëni suuta doon ab taalibe rek te doon ab jullit faw da njëkk doon ab jullit ba noppi doo ko doon taari bépp foo mën a doon waaye ab jullit mooy njëkk na kon mm, mbégte mi ñu am te di la ko seedeel te loolu dañoo waxtaan ci néeg bi waxtaan wu yaatu ma xam ne kii borom pas-pas la kii ku bëgg lu baax la xam ne kii it ab jullit la ab taalibe looloo tax nag may may defar soññ yu mel nii man moom bu doon kër-kër man lu kër-kër bari sama tekk ji kenn du ko dindi ndax xam naa ne kii kër-kër yi saa bu ñibbee it bàyyi maag sama tekk waaw ah, moo tax moo tax moo tax man man man kër kër yóbbuwuma moo tax toujours bu ma déggee ay wax ak aw ay coow sax dama naan leen toog leen te ne cell ndax xew gune ne xewee ca topp ah waaw xew gu ne xewee ca topp ah, nit kat la ngay dund ca gëm ko te ca lu xew ba traversé loola waaye toogal ca ca moom weeroo ñaari weeroo atoo xanaa dana dana dana ne tekkaat moom bu ne nee yaa ngi ci li nga ne woon bu wéyee di waaj baj baj yi yow dinañ xam ci li nga ne moo tax amul lu jar waaw lu xew lu jar di di di di di kii amul amul loolu loolu waaw waaw dara dara jëru ko daanaka moo tax moo tax daanaka fii it li ñu la wax rek kër sëñ Tuba la nu nekkal fi sëñ Tuba wax dëgg yàlla buntu kër gii du ma ko ubbal ma sàmba waxuma la di ko ubbal ma demba ku ne sañ na fee ñëw ku ne sañ na fee ñaan lu si kon sëñ Salif maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant bu baax maa ngi rafet lu ñëw gi ndax nag yaa ko wax léegi eh, jaamu yàlla bu xiif nga jox ko wax naa la ko ci néeg bi léegi nee naa la tey ñi fi ndogu ñëpp yàlla dogal na dinga am seen yoolum ndogu te ñoom du yàq ci seen seen yoolum ndogu dara dog gañ dog du ca yàq dara te yow sa koor geek sa dog gi yàlla dina la ko fay ndax asawmu li ana ajisi bii suñu borom nee na maam moom koor te maa koy fayal sama bopp bu ci des it yàlla yàlla moo mën a fayee noonu ndax ndax menn mbir ku ne nga fay ko ca fay ko ca ba mu doy loolu yàlla rek ko mën na moo tax mais li nga jëf fii jëf ju ju ju ju ñu neex la jëf ju kawe ci ñun la ñu ngi la koy sant bu baax a baax ñu ngi lay ñaanal sunu borom mu dolli laa dimbale bu ko defee boobu taxawaay nag ñu ngi la ci ñu ngi la ciy gërëm bu baax a baax a baax a la ci ñaanal suñu borom dolli laa taxaw suñu borom dolli laa dimbale ba yéene ji nga am suñ borom kàttanal la ba nga defee ko nu kawe njort yéene ji nga am ci say kilifa it suñ borom kàttanal la ba ngeen mën ko nu kawe njort fii moom dañ fiy ñaanee eh, ndax yaakaare fee ñaane ndax day barabu sëriñ bi ñi ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp maa ngi balu xaq ñëpp nag maa ngi ñaan suñu borom suñ jataay bii doon jataay bu yàlla gërëm eh, nit ñi nag li li li alxuraan wax wa maa maa yanfa'u naas fa yamkusu fil ard képp koo xam ne ku am njariñ nga ci nit yàlla yàggal la ci kaw suuf te wax naa la sànq ne dégg naa sa taxawaay lu jiitu sunu gisee. waaw moo xam moo xam ci gox bi la moo xam ci dëkk bi la ah, moo xam it keroog bi jëwriñ seen may ñëwee di ma indil sa jëf ca jumaa jooja ñu ngi sant bu baax yàlla nag ñun ñu ngi koy dagaan moom mi nga xam ne ñun moo nu gën a xam ah moo nu gën a xam ndax ñun xamuñ dara léegi tey ñu gëmmentu nelaw yàlla moomu la ñuy ñaan nag ki gën ci réew mi ki gën ci réew mi ki gën ci réew mi nañu ko wammatal ci kattanam moom ak xerañam hmm? ak bëgg-bëggam ak man-manam kooku ñëw ngir jiite réew mi ña ci dess dem xaar ta xamni ne jeexut incha allahu rabbi incha ñu ngi lay sant baax di serigne Sall neel mi ngi lay ñaanal gudd fon ak wér yaram bu talalé loxo nga ñaanal ko te ñun ñu ko ah, du baax parce que yalla rek mo fi nek nak te yeen nit yalla ngeen. neena na dañ leena soxla. lu tax taalibe di wax. mbàkke yalla na fi yag te and ak wér. da ngeen am jariñ yalla na fi yag mbàkke te wér te and ak kon ñu maase talal loxoy serigne bi ñaan Saliou keta DG CICES responsable politique euh, ci commune woné wat ni torel dom adama dey na ci wéru koor lu am solo la firnde ba ngoogu mbokk